pour pour nit ñi xam vraiment. ki ñu dalal tay euh ki ñu dalal tay légende -hmm. ñun yàgg nañ la suivre à bas mm-hmm. âge maanaam la sànq mm-hmm. mën naa ni ci say ci say ci say way la ñu jàngee lu bëree bëree bëree bëree bëri mm-hmm. tey wane na ko ndax boo xoolee page officielle bu Sen TV boo xoolee suñu WhatsApp boo xoolee ci suñuy message ñu ngi jot ay message yu bëri bëri soo bu ñëw bu ne rek dafa lu muy yee ci nit ñi donc soo la yàlla dimbalee may la jëmm yu mel nii da leen di war di sargal fu ñu mën a toll da leen di war a sagal di leen sagoo fu ñu mën a toll yow Fata lii bor la boo xam ne dama la ko yoreloon muy muy toog sargal. parce que tey. bi jafe ci ngeen ne ci rab. nee naa dëkk bi léegi seulement que lamp yi tàkk na yi fi leer na. mais bi muy lëndëm. dafa am ñu fi nekkoon. ñenn ñi laqatu. donc bi mu lënd lënd bu lëndamee rek. jàmbaar yooyu génn. ruyeel yi ñooy génn. Euh, euh, euh, borom fit yi génn. Mhm. mais feeg tàppet yi mm-hmm. ci ronal yi la ñuy nekk làqatu léegi bu lamp yi tàkkee nag ñëpp dañuy jóg mm-hmm. mais nag kenn ku ne boo jógee boo wéetee war nga xam kuy sa baay mm-hmm. dëgg comprendre nga loolu samay wax la quoi mën na engagé waaw donc yow ci musique ci rap ku la waxal lu rafet na noppi parce que liggéey nga ko que liggéey nga ko tey am na fu ñu tegoon rappeur bi yéen teggi ngeen ko. lu ci mel ne Fata. lu ci mel ne Daara ji famille lu ci mel ne PBS. lu ci mel ne mel ne mel na. am na lu fu bëri fu ñu tegoon rab mais yéen ngeen ko dindi. ba pare yow tamit nga doon kenn koo xam ne ci wàllu rab dafa am noo ñëwee. jóge saint yu ñëw Dakar. bi ngay dugg Dakar am na ñoo fi fekk ñu la gën a tëgg foofu. gën xam rab bi foofu. nga ñëw. percé coow li bëri lool nga déglu nekk bi musoo tontu. donc loolu idole la. Mm-hmm. kon les yi nga xam ñoo ñëw mm-hmm. dañu war di ci yow di mm-hmm. dañu war di di ci li ñu yor. je me rappelle. jamono bi 50 euh, Cent commencé génn Amérique. def in the club. affaire bi jóg kaw. kaa di ko fu nekk affaire yi xam nga mu toog ak benn journaliste. journaliste boo dafa ni yow sa temps bëggoon naa nga fekkee Tupac ba Tupac xam ni doo moromam. moom 50 Cent fi mu toog fit bi dafa rëcc mu daw ñëw ba ci waaj ne ko tëjal sa gémmiñ. daan na dinaa ko doon doon lu du ko doon. te du ma mës a mel ni moom. même bu dee ba léegi nii lu ma mën a génne bu ma génnee tonni album. mooy su ma bàyyi ci rab. Mm-hmm. léegi nag nangu boobu 50 Cent nangu. yenn booy yi des duñ ko nangu bu ñu jotee quelques appels. Mhm. quelques sànni yi tëdd seen dënn jooy rangoñ tuuru. waaw laal seen dënn wàcc ñu yii egg naa. fataa ngi nii nga ne waaw mais saa oh, kii rabam passé na. te bi muy metti mhm. mooy loolu donc. li ma wax tey la pour ñu waxtaan. mais dama la invité pour mhm. sagal la. parce que ñun xam nañ li nga def ci musique. son yi nga dégg nii lu mu la def. <laughs> balaa ma yegg ci son yi damay ñëwaat si sa taxawaay si sa waxtaan si sa discours bi parce que xam lu tax. Euh, comme ku nekk si émission hip hop. nii nii ça veut dire quoi ça veut dire que dafa wane yow. Eh, ne da nga dund ci culture bi tamit. da nga ci jud màgg si da nga si màggaale. donc on a partagé un truc en commun. Mm-hmm. loo xamante ni peut-être ñiy déglu. Mm-hmm. xamuñu ko tamit si yow. sama taxawaay peut-être li gën a feñaatee si yow. ça veut dire que nag loolu lépp ñun ñoo bokkandoo benn culture bi. Mm-hmm. li ñu bokk dëggantaan te yow nga nekk ci di gën a def ay musique mbalax ñu la koy gën a xàmmee moy amna luñu lu ñu bokk man loolu wax tout le temps boy dégg bi dérèb ji xam nga géwale bi xam nga yi mbalax bi tout ça <laughs> ñun loolu lañu am loolu lañu mom té yow loolu nga ma gëna findel ni si solo bi mm-hmm. ni ñu wone ni ci euh, média yi bu ko américain yi du ko dindi ci émission hip hop du ko dindi déjà donc ça veut dire quoi ça veut dire que musique yi amul dañuy roofonte mm-hmm. té aussi benen affaire bi ma signaler moy li ngay wax ni man ci corps bi may bi may woowee bu hip hop boobu. Mhm. du ma koy dégg lu bëri ni nga waxee nii. te pourtant hip hop moo gën a mën a loolu. Mhm. ni nga wax nii ni nga wax ni 50 Cent loolu def pour Tupac. Mhm. noonu la hip hop noo ko dafa bokkaale ci culture yi donc musique boo koy def tamit te amoo culture amul sens.

porté ah te man nag du ma duma ma du émission yi la la sama yu succès yu bëri jaar mhm. sama ngénte li mhm. bi ma ko joxee sama mbokk rappeur yëpp mhm. animateurs yi kenn nangu ko woon teg boo DJ Boubs suma laa ko jox fa la jaar déjà

am na lu bees lu ñëw si air bi quoi. donc mhm. euh, li ma def ak Viviane ak ndem si yàlla Cheikh. Euh, euh, Pakoti Pakoti Cheikh Sidaati Fall. Mhm. yàlla na ko yàlla yërëm. amiin amiin amiin am na doomam boo xamante ni maa ngi koy waajal benn affaire bu intéressant bu mën a woy tamit. Ah, ah. doomam waaw ah woy waay. woy dina moom dinaa andi nga déglu bagage bi. na dikk xam nga donc. Mhm, mu nekkoon loo xamante ni morceau bi muy bi mu génnee. dafa door mbéj ñëpp parce que je me rappelle bu wóorul bi mu koy njëkk teg nay ndax. Il nañ a nañ ci fekk donc lolo tax mu easy morceau bi est am succès je me rappelle aussi morceau bi nga tek ni bima def ak euh, meta ak gox bi système. gox bi système waaw. ba ko ko mais dama wul pour def ko. Ah. parce que man may New York ñu demandoo dajé Massachusetts. Mm-hmm. Boston coono ji man maa ko dékku clip bi maa ko dékku. Mhm. comprendre nga mais bi mu génnee succès bi ñëpp ko bokk. cool ñun ñëpp ci biir té mu nekk lu transversal. Mhm. sama morceau bi ma def ak wali ngénte li mhm. jóge na ci Youssou Ndour la laa ko njëkk lo mu déglu ko fekk jaal def ñu fal mu nekk. ministre mënatu ko mënatul def dara. mais fuma dajé ak mom ci jotaay mu ne ma affaire bi bàyyi ko fofu dé <laughs> xam nga noonu ci digënté bala Waly di ci woy jox naa ko Pape Diouf. mu déglu ko ne ma fataali garaaw naa xaaral ma déglu ma woo studio bi affaire yooyu. <laughs> woo woo te loolu jëlaat temps ma bàyyi mu jàll. mais Wally dama ko wax si jour bi mu ne ma ban heure la ñuy dem studio. cool. ñu dem mu ñëw studio yorewul sax oto mu ne ma booy de mooy dellu nga déposé ma. <laughs> Uh-huh. Euh, nga déposé ma fekk ma waroon def première partie yi. Euh, fële yi mu daan def quoi. Uh-huh. morceau bi ñëw génne. maa li toj réew mi. ba pare. <laughs> Eh. clip bi sax même waali ci bopam da ko jëlul à la légère manam bima waxé ñëpp ni dañuy def ben affaire bu melni ngénte ñëw leen affaire yoy waali bu njëkkee ñëw charax la sol bu tegg ay 5 heures hein fekk ma ngui xaar ma ni que dañuy ngénte. ñëwul ci heure bi ñu tuddu xale bi waaw ñëwul ci heure bi ñu tuddu xale bi parce que lépp lañ ci def lépp lañ ci def ngeen ci wane lépp ray nañ ay xar waaw def nañ ay bâche génn nañ lépp ma la wax li dra génn la cool donc biñ ko dundé ak mbay jey nak ndeysaan mu def ci musicalement lo xamanteni lu doy war la ñu def paysage bu mel noonu morceau bi mu génnee tamit nga gis retour boobu ci nit ñi nga xam ne morceau bu ci nekk. Mhm. marqué na lu bëri nit ñi. tey ngénte li nekk na loo xam ne du fay. Mhm. abadan quoi du fay. Mhm. donc mi ngi noonu ñu wax page officielle bu Sen TV gars yi gën leen partagé gën a commenté bàyyi seen numéro téléphone waxtu nekk mën nañ leen këf jox leen paasu màggal benen bi ñu tege moy tamit euh, cofeel bi ngeen am ci euh, Fata mu ngeen ko fa wone bind ko fa moo tax ndeysaan ñëpp ngi kàddu yi ma wax gars yi dëggal sax bay wax leneen loo xam ne waxuma ko. Mhm. ci euh, maanaam Fata ni mu liggéey ci wàllug musique.

donc <laughs> envfm mooy moom la nit ñi déglu mhm. nga daan fa yóbbu ay booy yu bëree bëri ay papas ay booy mhm. mhm. yu bëri ay booy ay booy yu bëri wax ay booy parcelle bi non ñoom no neem rescapé rescapé booy parcelle bi nga xam ne ñoom ñépp mu ngi leen doon xam ci freestyle yi nga xam ne moom nga daan def envfm léeg-léeg ñu jékki-jékki émission bi jeex ci xeex gaa yi ñun gaa yaa ngay xeex gaa yi ñi daw mariste <laughs> barki yàlla barki <laughs> nga lépp xam naa ne temps bu Facebook amoon neneen lay demee <laughs> temps yi whatsapp amoon neneen lay demee barke yàlla dëgg la donc donc Fata suñu borom da ko doon dimbale lépp lu mu doon laal suñu borom da ci def barke barke boo xam ne da lay sax yéem euh, émission yooyu lu ci ëpp ci xeex la daan mujjee mbaa xooloo ñu rek da ngay jékki rek dégg ku jël benn micro dóor ko borom rek <laughs> gars yi ne en ko arrêté balaa muy juri mbir waaw yooyu yooyu tey ji boo gisee nga xam ni li ma wax rek parce que nit ku nekk dafa am niveau booy toll mhm. man su ma amee sama xam-xam mhm. sama xam-xam dafa am fu muy toll fi mu toll foofu nag ci keneen mu yëkkatiwaat sama xam-xam mhm. loolu defal nga ko booy yu bëree bari bëri mhm. tey jii booy xool liggéey bu am solo ba mu xam yaa ngi ko doon def ci en am doon jàppale yenn rappeurs yi mhm. ba ñu bëri bëri bëri bëri daal di feeñ ay Umar Sadiga lañ doon xala Ginches ay ñoom ñëpp daan ko teewee affaire bi naay soon dëgg la tey jii tey jii lan la la def quoi bon da ngay da ngay da kontaan c'est-à-dire euh, li nga nekk ci def liggéeyu hip hop, animateur hip hop yi la. Ah. mais nak duma def distinction parce que. connaisseur nga mhm. homme de culture nga mhm. mais si euh, nous ku place am rek. Mhm. duñu dem. Nous la dafa leer lolou dafa leer. ken boy yi mënuñu teub rek dem nek nous man dama jox respect. ay daara ji yi musique et de la même façon booy di ñëw dañu wara nangu li fi jéego yi fi def parce que lolu tamit moy dëgg quoi émission yooyu émission la yoo xamante ni bi ma koy njëkk commencé def grand Mame Less dafa ni ma euh, dafa commencé woon du compliqué benn moment mhm. trop sax ma koy remercier si de passage mais confiance bi ñu jox demoon na ba ñu war ko tek mu tombé Euh, période yoo xamante ni gaa yu bëri dañ ko doon dañoo ñëw. Mhm. ñu bëri di fees ci bunt bi te mënuñu dugg sax dama mujj di laaj xaw ma lu may laaj. xaw ma mhm. ndax damay laaj xaalis. xaw ma wala ah? waaw mën leen carte d'identité waaw <laughs> amul carte d'identité mu yëg. <laughs> <laughs> Euh, donc loolu et puis mu tombé ak télé bi ubbi 2 ma yóbbu ko fa moom lañ transposé mu dem nekk foofu. quoi def ay justement. Mhm. donc da dem ba comprendre ne booy yi. Mhm. en tout cas jox naa leen chance su plateforme yi ñu doon feeñee. def nga lépp def nga lépp ñaakase rek bi muy wax barki démb dafa toog ba yàgg ne ma. su ma gisee su su ma déggee kuy war a wax mu ne Fara man si samay affaire sax si yow la jaar. Ah. ñaar coono bu mu naan am sax pour toog il faut feeling ci kanam. billaahi ndeysaan pour caméra bi taxaw ci kanamam. pour mhm. xam na ban caméra. mooy tàkk mooy tàkk na fi muy taxaw ci kanamu caméra bi. <laughs> gars yi donc damay nekk loo xamante ni day nekk benn vague. Mhm. mais bu feeñal ñu bëri. Mhm. te loolu du loolu dafa baax si bu ñu toogee ñun ñu koy waxtaane di ko leeral day di ko leeral dafa baax. Mhm. macha allah ñu ngi ñu ngi bëggee bu baax a baax Mame Diarra Thiam merci beaucoup Omar Cheveux Famara manager Clayton. Euh, Serigne Khadim borom ah, jinne yi may xuma Italie mm-hmm. Lady Kankou Baba Diaw Pape fay non fi mu toll nii mm-hmm. gars yi leneen ñu ngi dundaat leneen leneen leneen old school bi gars yi ngi koy dund ñoom Moussa gars yi koy dund bu baax a baax a baax mi ngi noonu may fataa mhm. soo bëggee dégg-dégg comme instant bii nii yow boo xoolee ban rab rab bi am na lu am na côté yu bari yoo xam ne daf daf ko rafle mooy bu njëkk dañu doon am da nga daan am rab hardcore da nga daan am euh, rab euh, hardcore bi doon am gars yi dañ daan freestyle mu daan tego ci yoon gars yi dañ doon ñëw di def euh, ñu dem ba léegi mhm. grënk bi gën a gën a gën a taxaw xam nga tey tey fi rab toll nii rab dafa dafa level bi dafa wàcc

ñu koy sàggane te dañu lew. dëgg la nga bëgg ne ricain te du ne Afrique ne sa kanam nga ba ko fa. yóbbu ko ci toolu wa teen ya booba ñu ngi rooti ca teen ya kon ci taasu la rab juddu nga nekk rappeur ne doo ko tudd taasu juddu jóge ci lawbe. bu mm. abi gànn dundoon mu raw de ñu xoole ba mu yegg ci loxo ñi américain yii di xund nii virus bi wàcc ci tund bi tey aji réer yi laay junj nii. Mm. maa ngi bëgg wane ne. Mm-hmm. lii bi ma ko waxee deux mille quatre la. deux mille quatre deux mille mm-hmm. 2000 2001 2001 2001. C'est un album Bob le album CBV. Mm-hmm. pour dire que vous nga bu fekkee dañu dañu dañu dañu complexe rap. Mm-hmm. américain yi ñoo créé. en 1973. nous mm-hmm. daf ñu inspirés mais fekk na mu nekkoon suñu deret ba pare. dëgg la ñoom dañ ko organiser. mais nous fekk na ñu nous taasu. dégg xaxar dégg kebetu dégg mooy li ngay wax. taasu ci biir taasu boobu. ngay gisee li ñuy wax naan bu dëgër bu dëgërul yooyu yëpp mooy yi tubaab yi jël américain bi jël def ci ay ego def ci ay freestyle ay def ci ay. Euh, dirty south. lépp loolu sax musique bi mooy évol moo évoluer. mais en tout cas lyricalement. Mhm. da dem ba retrouver mhm. yi ñuy wax noonu yëpp. ci yo xamanteni ni na fi. parce mhm. ay xaxaar yi fi am yëpp am na fi da ngay xam mag yan ñoko daan def. dëgg la à l'époque. Mhm. te raps mi ngi juddu de en 1973 74 donc. dëgg la yàggul. Mhm. rap yagul léegi nak ñun bu fekkee daf ñu inspiré am casquette yi ñi sol ni koy solé lepp mu déparé ci hip hop bi dans le Bronx. lolu d'accord nañ ñu ni yóbbaale yobale nañu ba feeñal ñu. ba xamal ñu loolu mais biñu démé ba xamé aduna bi dafa toll fo xamanteni dañuy nangu ne ci tasu lan moo nuróog lu jege woon rab ci ñun. dëgg la. xaaxaar kebetu. Mm-hmm. loolu la ñu war a jëlaat moomal ko suñu bopp donc taasu yi may dégg ñi naan bu nooy bi tànk demul ci yëfu góor jigéen. Mm-hmm. bu góor jigéenewul. waaw waaw. bu góoree rek. Mm-hmm. te góore bi sax waxuma ko ci flow bi de. maanaam ci attitude bi ci yenn termes yi. bu góoree rek. bu ko neexee taasu mën na nooy. Mhm. mën na dëgër. mën na dëgër mën na dëgër parce que. parce que mhm. flow lay andi loolu mooy flow. Mhm. am na rappeur américain yoo xamante ne am nañu flow yu gaaw. am na yu dëgër. am na yu yu yu yu stylé yu stylé. Euh, tiyaay da ngay gis buy rab day rab di wax na kuy kuy kuy way. te dafa te dafa ni muy way dafa neex. donc c'est pour dire que si li ngay wax nii rek ne. Euh, musique bi dafa toll foo xamante ni ñu dafa dellu siwaat suñuy loxo. kon dañ gaa yi dañu war dañu war a gëstuwaat wala dañu war a gëstuñ wala. dañu war a dañu war a xam ne dañu war a taxawal suñu dëggal suñu bopp. Mm-hmm. dañu war